demande d'audience nag ci ki nga xam ne moo di son excellence euh, pour rek mën euh, sax gën a li nga xamante ne rek moo di maire de la ville de Dakar ak projet bi nga xamante ne am na ko on se rappelle ci nguuru président Macky Sall audience boobee yàgg na ko ñaan rek pour gën a suqali li nga xamante ne rek moom moo di Dakar xar kanam bu yees mu di plateau mairie de la ville de Dakar aux alentours ak li ko wër jamono gi nag mi ngi ñoon audience jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew bu Sénégal askan wi ñu naan euh, na xool démb ñoom ñaar seen relation moom ak ak am na rapport ak Ousmane Sonko ndaxte ki nga xamante ne moo di Barthélémy Dias si on se rappelle bien doomu ndey Ousmane Sonko la naam rëkk-rëkk mën ta ci ñaar ñuy ànd waaye jamono gi ndax mën nañu rëkkale waat li nga xamante ne moo di les mais bala muy dem maanaam kan moo ñaan audience Barthélémy Dias moo ñaan audience. waaw parce que tey euh, son excellence nekkul lu la neex nga koy gisee. xalaas ku nga gis tey da ngay da ngay demander audience. te yàlla euh, gis nga xaritoo boo gis sax balay dem balay dëggantaan. foog ngeen laale. Mhm. Ousmane nag Barthélemy yaakaar naa loolu la parce que ñoom ñaar. du du ay xarit de. du ay xarit de mais yaakaar naa ne waaw kay damaa bëgg rek mu leer. ñoo bokk bëgg-bëgg. déet bokkuñu bëgg-bëgg de. kee dafa jaay drapeau am Barthélemy Dias dafa cuub drapeau am jaay ko. pexeem Barthélemy ba tey li fi nekkoon moo fi nekk si seen. mais ay xarit. laa la wax ndax ba mu méttee da ko faa bàyyi ku la yéene kaso. ku la yéene kaso wala nga dem kaso te seet siwu la kooku sa noonu la bisu nit ma ne c'est pas vrai c'est faux Barthélémy Dias bu ay pexem sotti woon Ousmane Sonko du toog fii kooku warkat la c'est un traître nga naan ma lan nga naan ma ay xaritool wax la ma leneen waaye mais mais mais xoolal euh, comme la la woon nañ ko mm-hmm. fàtte parce que. duñ ko fàtte de defar Sénégal ko soxor nag bana ko soxor te bu yàlla am na taxañ bu la yàlla tàccuwee booy booy jaaw nuyu naa daan la sànni xeer yooyu mm-hmm. suñu borom sax daf lay daal di mere nag day bàyyi lépp ko mm-hmm. comme Dakar mooy maire nii te defar Dakar jot na nag trois ans ba fi dese day dootul falooti na déglu ba. te xam nga ne Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko dinañ daje assemblée nationale. dañuy daje sax te koo déglu. confrontation koo déglu koo déglu sax tontu ko. Mhm. na ko na ko déglu ba xam lan lay ñëw di wax si lan lay mhm. lijjanti si. non loolu agence bi moom faaw mu am. Mhm. waaw parce lan moo tax parce que dafa am lu leen boole. lien bi nekk seen diggante. te lien bi leen boole nan la. parce que tey kii xam ne mooy meeru Dakar. tey bu jógee tey di wut audience. dañu xool kii que am na lu fi jot a jaar. wala am na ñoom ñaar bi nga xam ne jot na fee parce que liggéey moo leen boolee mhm. lien bi mooy liggéey. <laughs> parce que en tant que président de la république. ki nga mhm. xam ne mooy maire Ndakaaru. même donte sax bokkul ci ñoom. ci maam Boye Diawo bu ko mhm. soxlaa. déplacé wu pour bëgg ko pour bëgg ko gis toog pour waxtaan. Mhm. waxtaan bi mu mën naa nekk ci intérêt personnel. mën naa nekk ci intérêt Ndakaaru. Mhm. mën naa nekk ci wàllum Ndakaaru. te intérêt yii ñu jël nag tey surtout mag ñu jël ni ci corniche bi sax. Mhm. loolu la loolu am na ci yoon boo xam ne war nañ ci mën a toog waxtaan. effectivement parce que en tant que maire de Dakar. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war nañ ko liggéey focus avancé ko ci Ndakaaru. kon ña maanaam toog bi war naa mën a am parce que li ma lay wax rek xam nga kenn du jël pee. naan dessus moo opposé mm-hmm. Mm-hmm. te opposition yi moom nañu resté fee di opposé rek mm-hmm. ndax yaakaar naa ne Ousmane Sonko ak Diomaye yaakaar naa ne li ñu wan sénégalais ci xaru kanam lii ñu commencé commencé ko ci Ndakaaru di rëq maanaam rëqum naar macha allah rëq yi di daal liggéey bi di tegu ci yoon ñëpp seen xol yi voilà yaakaar naa ne ku nar ak ñoom rek da ngay xaar ba sonn da ngay xaar ba sonn kon nag bu demee Barthélémy Dias nekkat ay doomu ndey yàlla tere Barthélémy Ousmane Sonko loolu mënta nekk ay moo ko ñaawal mhm. Barthélémy moo yàq digganteem ak ak Ousmane Sonko parce que ñoom ñaar dañoo xamante woon di ànd ànd bu rafet mhm. tey Barth bu demee tey ba dégg monsieur le maire grâce à Ousmane ko mhm. ndax bu doon Ousmane Sonko di ko dégg ba keroog muy gaañ loolu de koy wax waaw du ko dégg bu doon Ousmane ko dégg ba keroog muy gaañu du ko dégg hmm. Ousmane Sonko moo ko def tey li mu doon ba ci tey ji maire ñu ci bari tey toog di xoogaliku tëgg grand monsieur ànd ak Ousmane Sonko ndax lan xam nga jege hmm. am nga niin hmm. di nga niin ba pare waaye boo waree dem di nga bëgg a niinaat mu tëla parce que loolu moo leen def Ousmane Sonko da leen def ci ay moment yu difficile la Barthélémy Dias rocceeku won ginnaaw ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci jamono bi nga xam ne dafa metti mhm. jamono bi nga xam ne problème yeeg tolof tolof yi mi ngi taxaw ci waa wàllum aji saar yeneen ay dossier Mame Mbaye Niang ko soutenir boobu la soxla woon ku ko mhm. épaulé waaye moom côté boobu la génnee war mhm. boole ceeg ay wax yu ñaaw wax yu bon wax yoo xam ne teggi new moon ko ginnaaw waaye mënut a tere parce que ñoom ñaar duñu nekk nekkatuñu ay xarit ah, waaw parce que ay ennemi lañ waaw non du ay sax ay liggéey nan nan liggéey rek bëggoo juboo yow. non non du question de juboo de mais. Barthélémy da koo ñaawal du moromam te du ñaaw leen non d'accord ma dépassé da ko dépassé da ko romb ci wàllu dépassé ñoom ñëpp ñoo bokk benn ah, maire de la ville de Dakar ak ki nga xam ne mooy premier ministre mm-hmm. même waxuma sax ci ay ci wàllum grade mm-hmm. mais ci wàllum capacité mm-hmm. ak personnalité la ko Ousmane Sonko rombee ba jamaay nag bu ko bu ko ñëwee jaar fi moromam yëpp di jaar en tant que monsieur le maire dina ko recevoir toog waxante ak moom parce que dañoo bokk bokk liggéey bi ba pare mhm. kii mooy président kii mooy maire Ndakaaru te dafa am loo xam ne da koo jóg mhm. lu ci mel ne corniche bi ak yeneen ak yeneen maanaam Sénégal naat lu mhm. ñu koy wax ne ville morte bi ñu génnee ko teg fi ville verte macha allah lépp naat lépp baax macha allah kon nag bu la neexee mën nañu toog ñoom ñëpp ñu waxtaan ba trouver li nga xam ne mooy terrain d'entente waaye Ousmane Sonko lépp loo xam ne lu ñaaw loo xam ne da koo jël teg ci kawam doon tul doon na tul moom moom Barthélémy Dias mën na li may wax mooy Ousmane Sonko na am esprit de dépassement mhm. ma la wax mu am esprit de bàyyi lépp mu sedd bàyyi lépp mu sedd parce que liggéey loo mhm. ko bëggee def mënoo koo booleeg defante mhm. mënoo koo booleeg kii sànni woon na ma xeer kii saaga woon na ma ndey parce que Barthélémy mooy maire de Dakar actuellement kon na ko tàllal la ko ñu liggéey ci cadre liggéey na ko wuyu ñu liggéey nañ ko mhm. déglu nag parce que koo déglu tontu ko bu ñëwee ba toog mhm. nañ ko recevoir déglu ko mhm. xool lan lay andi mhm. la mu andi nag bu dee ci lu soxal ndakaaru la wala lu soxal li ñu ànd ceeg moom bu dee leneen la nag mhm. Ousmane Sonko wala président Diomaye ñoom xam na ni paaka leen paaka leen kenn du leen di seen baat Sonko du toppante ak yooyu président daf ko romb mhm. daf ko romb du loo moom mu perte perte meeru sax ñu àndaat xam nga parce comme li nga wax kërël mënta ñàkk politique moo mel noonu. si si politique la ah, langage politique la Ngone la possible. politique la de Ngone. Ngone en politique eh, Ngone. Eh, yéen de fu mu toll nii. lan lañ bëgg a toog naan seen café kilif bi di leen ëpp ngeen. xam nga xam nga dañoo politique c'est la gérer la cité donc pour ñu gérer cité yi. foo ñu juboo seen biir ba da waxal. dëgg fa waaye waxal. non non man dëgg rek laay wax dëgg rek laay wax ndax lamin moom ay pexem bu juboon Ousmane Sonko du egsi bi muy egsi. mooy ndax euh, ki nga xamante ni tey jii Barthélemy Dias li mu mës a rêvé ci àddinaam mooy jiite ndakaaru meer yi. Mhm. loolu la mës a rêvé ci àddunaam ki ko defal mooy kan mooy Ousmane Sonko moom moo ko defal. Ah, parce que maire bu fi falu tey ni ko ngóone waxee rek grâce a Ousmane Sonko la loolu yàlla moo koy def yàlla mooy jël nit jiital ko comme ni mu jëlee ci waykat yi jiital ci Mar Yacine may sa biige Mar noonu la jiitalee Ousmane Sonko ak Jomaay maa la wax loolu noonu la noonu la jëlee jiital leen yàlla moo leen jiital ci réew mi ku bëgg Ousmane Sonko bëgg Jomaay sax say mbir day ibbeeku day baax parce que loolu la yàlla def jamono ju ne ak ñi yàlla di wàcce te ñoom it wax dëgg yàlla yàquñu ko am na nañ yar am nañ teggin te lii ñu jël gis na ne ñu ngi liggéey mais Barthélemy Dias fa mu mettee fa mu gën a fa mu fan ko gënee soxlaa fa la tey ji ay pexe bu juboon Ousmane Sonko du génn Diomaye du génn léegi nag comme liggéey non dëgg la comme liggéey nam séq muy mairie Dakar la yor li mu yor Bartlamine moomu ko askan bee ko fi teg teg ko hmm. liggéey la nan waxtaan ci cadre liggéey rek yem ci liggéey Bartlamine liggéey mu teg ko ci yoon rek parce que ña ah waaw mais liggéey la rek ndax ñaar ñi moom joolaa beeg séeréer moom incha allah bi moom ku nekk ak ñoom ku ne di nga liggéey liggéey par la force ak focus bu fekkee ne nga xëy na bu fekkee ne tamit oñaas bi muy ñaan dafa sàccoon ci xaalisu réew mi bëgg a dem gisee comme ni ko jamaay ah, waxee mën naa nekk tamit am na amaana tamit looloo tax muy ñaan oñaas hmm. voilà waaw mën naa am lim sàccoon lay dem di déclarer ji rek ah comme ni ko jamaay waxee Bart hmm. ah ku mës a nekk pat Bart bu sàcc sàcc la bàyyam sàcc la parce que bàyyam ci nguuru socialiste Jean Paul. ah waaw mais dëgg laay wax nguuru Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ku fi mës a nekk ba ci Macky Sall sàcc nga parce que ñun looloo ñu mës a fi mës xew ci réew mi. nguur gi moom kenn sàccagut nguur gi waxtaan wax dëgg ca yàlla dëgg rek la bëgg. Mm. nguur gi kenn sàccagut. ñëpp a ngi liggéey ba sàccee di nga toog wax ko. ah waaw te góob mënuñu sàcc sax parce que Ousmane Sonko bañ na ko bi muy fal ay ministre am kenn ku ne li mu la wax leer na. Mm. liggéey nañ wax. te gisuñu fi benn ministre tey bu fi balballu waaw kon jeex na jàpp naa ne ñoom dañuy liggéey dañuy liggéey de. en tout cas ni nga ko ah. moo di euh, Barthélémy Dias maire de la ville de Dakar ñi ngi xaarandi rek rencontre bu exceptionnelle avec le président de la République fële ca waaye itam avec le premier ministre Ousmane Sonko askan wi rek euh, di euh, ñaan rek ñoom ñaar ñu daal di reconcilier ni rek moom moo di les morceaux ba ñoom ñaar ñu mën a nekkaat ay xarit daal àndaat ci ànd gu nu mu gën rafetee rek ba tax na rek ñu ngi nuyu encore une fois ñi nga xamante Badji Maguette Diop ñu ngi leen nuyu bu baax a baax Mademba Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di am contentement ci topp nga xamante ne rek saa su ne dañ koy ànd ak ñun ci li nga xamante ne rek moom moo di topp kaa ba tey ñu dugg ci ñu deuxième partie tey nee naa ko tey 100 pour cent people 100 pour cent people et dañ koy